فضلك دفتر الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين الغر الميامين مبكي نيسيتا فتبارك الله تي جروب ميجا ديسيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي سنتي الله سبحانه وتعالى مؤمن ما يتطل ما ينفكه فتبارك الله تنبا خم وايدي جلي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين خمني لولاه لم تدري الخليقة قدره به فتح الله الكنوز البوادية وانا لديمني لب يالله سبحانه وتعالى أمل أك لمنتي دون أك نمومنتي مل أك غرات بمومنتي يور منكو أمي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ndax bu mindeef xamee boppam bu mindeef yégee boppam ak mindeef bu mu mënti doon loolee yàlla mu ngi la ko joxee ci daraje yi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax wax naa la ba tàyyi ne moom rek mooy ki existé ci kanamu yàlla li yàlla bind lépp ak li muy rëy rëy ak li muy foor foor la ca am daraja ña ca am martaba ña ca am ndombal tànk ñoom ñëpp fa tabaarakallahu yàlla daf leen a bind ngir màggalee leen sayiduna muhammad moom la la sa maam Seex Seydil Xaaji Maalik doon wax ne fa tabaraka allahu ne wa ma xalaqa arrahmanu cheyan li nafsihi siwa sayidil mahmudi wa huwa habibu waaye wa awjada baaxil xalqi taadima xubbihi alayhi taxiyatul ilahi tatibu yal nañ ko yàlla fayal nee na yàlla li mu bind lépp fa tabaarakallahu daf leen a amal ginaaw bi mu amale yonent bi nga gis ne kon sayyiduna muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam mo existe ci kanamu yàlla subhanahu wa taala li ci dess lépp yàlla daf ko amal ngir magale ko sayyiduna muhammad ak ko mën di don nak ak no meuna mel ak daraja jo mën di yor yàlla subhanahu wa taala daf la bind rek ngir magale la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotay bi nak tabarakallah ñu ci waxtane kan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamne mo waral lépp fa tabaarakallaahu démb ma wax la bind bi ko yàlla bind nga xam ne da ngay dégg façon bind bi rek bëgg ko moom yonent bi waxuma nga gis ko waxuma ñu jàngal la ko waxuma ñu wan la ko waaye ni ko yàlla bindee moom yonent bi na mu yéemee ak na mu rafetee ak cër bu nekk la mu représenté ci moom da koy dégg rek bëgg ko moom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag jox ñu ko muy kado ci ñun kado yàlla ci ñun mooy sayyiduna muhammad yàlla ne soxlawu ma ci dara nag lu dul ñaar ñaar laa ci bëgg démb wax naa la ko mooy yàlla ne xam leen ko ba pare boo leen ko xamee ba pare ngeen màggal ko ndax man yàlla mi ko bind xam ko moom yonent bi yàlla mi bind sayiduna muhammad xam na ko te gannaaw ba mu ko xamee ba pare nag yemul ci xam ko dafa wëlbatiku di ko màggal waxoon la ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi kon ya ayuha amanu sallu alayhi man yàlla mi bind sayyiduna muhammad mu gënal mal ci lépp lu ma bind man yàlla motax ma bind lépp mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam xam gu ma ko xam ak sop gu ma ko sopp moo waral man yàlla subhanahu wa taala ma taxaw jobe magal ko mom yonnati sallallahu alaihi wasallam yamul ci man yàlla rek mais dama ànd ak samay malaika motax mu ne nak ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi kep ko xamni gëm nga yàlla nangu ne yàlla rek a yàlla nangu ne yàlla rek a fi nekk yàlla nee na màggalal ma jullil ma ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax nag fa tabaarakallahu démb ñu ñëwoon ci abiyaat yooyu nga xam ne góor gi def na ko ci moom di Cheikh Seyd El radiallahu anhu ca jàngale gu mu jàngale yonent bi ci wane gu mu wane sallallahu alayhi wa sallam yitteem yëpp moom Maodo mooy fexe nit ba nit ñëpp xam kan mooy sayiduna muhammad ndax xam nañu ne bu ñu ko xamee rek danañu ko sop moom yonent bi xam na ne bu ñu ko xamee rek danañu ko màggal moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ku ko màggal boo demee ci yàlla ala kulli xaalin ku màgg ngay doon foofu ku ko sopp boo demee ci yàlla fa tabaarakallahu sa lépp dafay daal di baax moo tax cheikh alhaaji mouhamadul mansour doom ja borom ñaari kaala ya waxoon la ko mahabatuhu yumnun wa wa rahmatun wa taksu min al anwaari man kaana gis nga li nit di ut lépp yàlla mi ngi la ko nëbbal ci cofeel ci sayiduna muhammad ndax àdduna fi nekk boo déggee jóge ci àdduna yaa ngi dem ca bàmmeel boo jógee ci bàmmeel yaa nga dem tabarakallahu ca tax taxaw ca kanamu borom bi subhaanahu wa taala ñetti palaas yooyu yëpp nag dafa am lu fa nit ki di soxla boo nekkee ci àdduna bëgg nga am barke bu ñu ne barke rek ëmb na lépp lu waay def ci àdduna te àndut ak barke loola du ko jural njariñ dund gu amul barke baaxul liggéey bu amul barke baaxul mbooleem looy def rek tabaarakallahu ta amul barke baaxul cheikh alhaaji mouhamadou mansour ne barke boobu na boo ko bëggee jafe na lool ñëpp a ngi koy wër waaye ma tegtal la ci yoon bu gën a gaaw boo xam ne boo fa jaaree da nga ko am ci lu yomb mooy bëggal sayiduna muhammad mahabbatuhu yum nun bëgg sayiduna muhammad dana jural nit barke lu mu laal rek tabaarakallahu mu barkeel lu mu dugg itam fa tabaarakallahu mu barkeel dundam gépp barkeel te dund bu gudd amul njëriñ dund bu gàtt te barkeel moo ko ëpp solo moo tax boo xoolee mag ñi fa tabaarakallahu li ñu fi liggéey yëpp da ngay yaakaar ne ay téeméeri téeméeri at lañ fi def te déedéet at ya bariwul waaye nag boole nañ kook cofeel ci sayiduna muhammad yàlla def cofeel googu jural leen barke dund nga ne góor gi boo fi jógee dem bàmmeel mu ne bàmmeel lëndëm na bàmmeel xat na suuf diis na wéet na ñépp fa tabaarakallahu dañ koo ragal ba kenn bëggul ku ko tudd te ala kulli xaalin mu suñu kanam foog mu ñëw te boo ko préparé wu rek fa tabaarakallahu du sotti fii ci àdduna nag fi ngay préparer lu leeral sa bàmmeel fii ci àdduna fi ngay préparer lu yaatal sa bàmmeel fii ci àdduna fi ngay préparer lu tax suuf du diis sa kaw loolu nag Seex Alxaaji Mansour nee na la ca gën a gaaw mooy bëggal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa moo tax mu ne mahabbatuhu yumnun wa amnun wa rahmatun waaye nag wa taksu min al anwaari man kaana aariya beneen bi ci des boo bëggee am sécurité ci safara li muy foor foor li muy tàng-tàng li muy mën a lakke-lakke li ko nit ñi di tiit di tiit yàlla nee na subhaanahu wa taala bëggal ma sama sa sama jaam bii di sayiduna muhammad bëggal ma sama soppe bii di sayiduna muhammad safara nee na bépp yaram woo xam ne xol ba mu ëmb dafa am lu toll ni pepp suuf ci cofeel ci rasulullahi man safara rus naa di lakk woowu la yaram moo tax nag bu ëllëgee yowmal qiyaam lo meuna def ak fo meuna a jaar jàkkaarloog yàlla mu jugé la ba war la yóbbu safara ñu vérifier sa xol fekk ci lu toll ni cofeel ak lu mu ndaw ndaw ci sayyiduna muhammad bégal ta xamne muccu nga kon ñetti place yoyu li ci gëna a gaaw ci muccel ci nit moy tabarakallah cofeel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye nak nag góor gi ne wa taksu min al anwaari man kana aariya yegone yowmal qiyam bu ñuy ca kanamu yàlla يالا دي لاكو واخ القران الكريم يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وصرجرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يزوقون فيها بردا ولا سرابا الا حميما وغساقا جذاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا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 du doy war moy kenn ku ci nek rek tit nga titay bo xamne ni dotal sa morom xam nga nit bu tité ba talut domam nit tit ba talut way juram bobu la tital fa tabarakallah du tax nga tal sa bop motax nak nañi rafle wo kenn du tal sa morom waye Cheikh Alhaaji Mansour neena bo beugé bis bobu nak yàlla subhanahu wa taala sañseel la yére yo xamne yere leer lay doon wa taksu min al anwari yére yoo xam ne yére leer lay doon foo toll ci mbooloo mi ñëpp ràññee la xam ne yaa nga nële nga xam ne àdduna ngay sañse rek foo jaar ñu ne la sañse nga foo jaar ba jàll ñu ne diw la mu sañse tey bis ba nag nga xam ne ñëpp ay teew li yàlla bind lépp ay taxaw boo bëggee yàlla sañseel na sañse ba rafet lool cheikh alhaaji mouhamadul mansour nee na fexeel ba xajoo sayiduna muhammad sa biir xol moo tax wa taksu min al anwaari man kaana aariya nga gis ne kon wax naa la sànq fii yonent yàlla muhammad toll ci yàlla ni yàlla bëggee sayiduna muhammad ni ko yàlla defal nga xam ne borom burdu waxoon na la wa wa kulluhum min rasulillahi multamisun garqan min al bahri aw rashfa min ad diyami mbooleem yonent yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon kenn ku ci ne mucjiza ba nga def kenn ku ci nekk na nga feeñalee may yi la yàlla subhaanahu wa taala defal ak li nga def ci àdduna mu yéem ñëpp Muhammadul Busri nee na bu mu leen yéem ñoom ñëpp wa kulluhum min rasulillahi multamisun ku ci nekk la nga yor la mu bëri bëri ak la mu foor foor foor ak la mu jommal jommal ña nga dajaloon jamono yépp dafa mel ni yonent géeju yonent bi lañu sëpp benn puso seppi ko la taq ci puso ba lañu leen seddale ñoom yonent yépp la des ca géej ga mooy mayu sayiduna muhammad wata wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharqan min al bahri aw rashfan min ad diyami ngir bëgg la wax ne ñoom ñëpp am nañu martaba ñoom ñëpp foor nañ ci yàlla waaye nag fa Moustapha toll ci yàlla kenn ci ñoom toll fa fa Moustapha yegg ci yàlla kenn ci ñoom yeggu fa ma joxal la démb ñett ñoo xam ne ku ci nekk yàlla jox na la garaat garaat ba foor na ba nga yaakaar ne kenn dootu ko am ci àdduna mu di yonti yàlla ibrahima alayhi salaam alquran nee na wattaxada allahu ibrahima xalila ba ca des di yonti yàlla muusa alayhi salaam alquran nee na wa kallama allahu muusa taklima koka ñetteel di isa mi nga xam ne mooy ruuxullahi di kilmatuhu nga xam ne yàlla daf ko bind ci kun fayakun saxaaba yi dañu toog benn jotaay saxaaba sayiduna muhammad yi foo leen fekk ñoo daan bokk jotaay di diisoo ñoo daan bokk jotaay di sottante xalaat ngir soppante gu soppante woon moo tax keroog bi yàlla ne muhammadun rasulullahi ca alquran daf ca teg walladina maahu bokkoon na ci seen jikko ñoom saxaaba yi ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum tareehum rukkaan sujjadan yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana dañu bëggante woon ñoom saxaaba yi ku ci nekk rek jël sa moroom taf ko ci sa bopp moo tax foo leen mës di fekk ñu toog rek dañ daan def jotaay dajaloo di waxtaan benn bis ñuy waxtaan waxtaan wa neex loolu kenn ku ci ne di wax li la yéem ñii naan man de li ma yéem mooy Ibrahima nu ko yàlla defee xarit xaritoo gi yàlla xaritoog ak yonti yàlla Ibrahima sunu maam ñoom moo leen yéem ñii naan lim ñi ma yéem mooy ni Muusa waxee ak suñu borom subhaanahu wa taala wa kallama allahu Muusa takliman ñii naan li ñu yéem mooy nan la Isa nekkee ruuxullahi te fekk booba sayiduna Muhammad mi ngi leen di dégg jekk-jekk rek ne tëll seen kanam ca bind bu rafet ba ca leer ga nga xam ne démb wax naa la ko fii ne la Cheikhul Xaaji Malik nee na xarkanamu sayiduna Muhammad moo raw weer wu mat cig leeraay wa wajhu xayril waral muxtaari min mudarin min atala'lu'i badrun fi duja zulami moo tax Aïcha mës na ko wax boo demee ca Hamziya bayit ya ñëw na fa ñu ne su sayidatuna Aïcha sunu yaay dafa nekk ci néeg néeg ba lëndëm lëndamaa yu néeg ba moo tax puso ba mu doon ñawee wadd mu seet seet ba découragé gisut puso ba waaye jékki-jékki rek sang bi jóge ca biti rek dugg si ca néeg ba néeg ba leer naññ sayidatna Aïcha jàkkaarloog ak puso ba for puso ba yamu ca ci jonge gu mu jonge woon ak bëgg gu mu bëggoon jëkkëram ndax wax naa la jigéen balaa baax di way di way jëkkëram ne ko wa ajmalu minka lam tara qattu aynin waaye wa ak minka lam talu din nisa ne ko maa ngi waat ci yàlla ne ku la gën a rafet yow sang bi bët dootu tegu ci ku la gën a rafet ba àdduna di tukki waaye wa ajma wa akmalu min ka lam di nisa ba àdduna di tukki jigéen dootul sukk jur ku la gën a mat yow sayiduna muhammad ne ko daal li la yàlla ni la yàlla bindee xuliqta mubarraan min ay bin ka annaka xuliqta kama tasha dafa mel ni daal yàlla bi mu lay bind yow yaa taxawoon ci kanam di ko commandé nan ko nii laa bëgg mel xam nga kuy commandé yàlla nag sa gàttaay du la dérangé sa njoolaay du la déranger sa ñuulaay du la déranger ah, ndax ñii yàlla def leen a bind ñu gàtt gàttaay ba déranger leen lool ñii yàlla bind leen ñu njool njoolaay ba déranger leen ñi ñuul ñuulaay ba déranger leen ba ñuy uti lu lu xonkal seen ñuulaay boobu loolu nag dalut sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xuriqta mubarraan min kulli aybin Moustapha amul défaut ci bind bi ko yàlla bind Cheikh Alhaaji Mansour waxoon na ko ka annahu kama yashaau sawarahu baari nasam yàlla daf ko xool ni mu ko neexee rek mu defee ko noonu moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Moustapha tëll ca saxaaba ya fekk ñuy wax ku nekk la la yéem mune len deg na li ngeen wax ana ñi wax ne li len yem moy ibrahim moy xarit yàlla ñu ne ko ñun la mune ana ñi ne ñi wax ne Isa moy ruhu yàlla ruhu allah mo len yem ñu ne ko ñun la mune ana ñi wax ne musa moy kalimullah mo len yem ñu ne ko ñun la te démb wax naa la ni ngir nga xamne ne yonti yàlla Muhammad du morom yonent yi ci des am nañu ay garaat am nañu ay martaba mais yemuñu mus yemuñu ak Moustapha jegewuñ ko sax foo nuñu puseeram xeetu sayiduna Muhammad ki démb wax naa la ni bi yàlla di taxaw ci tuuru Siina di wax ak yont yàlla Muusa bi muy taxaw ci tuuru Siina di wax ak boroomam subhaanahu wa taala diggante ba soixante-dix mille baaraas moo fa dox te barrage yooyu benn bu ci nekk na mu toll kenn mënu la ko wax yàlla ne nag bëgg gi ma bëgg yonent bi moo waral ma bëggaale aw xeetam ba tax ma def leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas xeet yi am yépp xeetu sayiduna muhammad moo ci gënal yàlla ngir fi Moustapha toll ci yàlla yonent yàlla musa ne yàlla wax nga ak man ndax di nga mayeti nit martaba bu toll ni wax ak moom mu ne ko jàppal ne nag bi may wax ak yow soixante-dix mille barrage moo dox suñu diggante waxuma la sayiduna muhammad waaye xeetam nga xam ne ñooy ñëw mujjug jamono danaa leen jox benn weer boo xam ne ñoom laa koy teralee mooy chehru ramadan al mubarak danañu ko woor ba ngoon danañu woor ba xiif mar waaye bu ndog jotee avant ñoo dog mboolem barrage bu dox sama diggante ak ñoom dama koy dindi ba mu seet wecc nga xam ne man ak ñoom ku ci nekk rek booy dog dog yow ak yàlla face à face kooku xeetu yonent bi rek ñoo ko am te yàlla nag ci barke yonent bi la leen ko joxe yonent yàlla Muhammad ne dëgg la Muusa mooy xaritu mooy waxante woon ak yàlla Ibrahima mooy xaritu yàlla dëgg la Isa mooy ruuxullahi dëgg la waaye nag bu leen fàtte ne man maay habibullahi wala faxra xolam modeste sayiduna muhammad jikkoom yépp a baax waaye ni mu tolloon ci modeste moom dafa jéggi dayo cheikh alxaaji malik nee na wa xaaza maa xaaza lakin laa yumaasalu min tawaaduin wa xushuuci alqalbi wa ratami yonent bi de la mu làq ci ay may làq na ko ba pare waaye nag lii di modeste kenn du ci tollante ak Moustapha moo ko ëppale ñëpp lii di kersa kenn du ci yem ak moom moo ko ëppale ñëpp moo tax mu ne leen man may habibullahi may soppe yàlla te li may wax nag awma ci benn pookare bu ëllëgee liwaul hamd ci sama loxo la ko yàlla di teg te wala faxra i'lam annahu rasulu rabbil alamina wa qaida alghurri almuhajjalina wa sayyidi jami'i alanbiya'i walmursalina raufun bilmuminina رح يروف بالمؤمنين شفيع بالمسلمين والذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين والذي أرسل كافة إلى الخلق أجمعين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مصطفى نبو ألغي لواء الحمد مريد رابو سنتي يالا بو نيب تخوي تي سما لوخو لاكو يالا دي تك سبحانه وتعالى ولا فخر دوكو تك تي لوخو كين كودوت يونتي يالا محمد yonent bi ne wa ana awalu mushaafiin wa awalu mushaffain awalu shaafiin wa awalu mushaffain bu ëllëgee bu ñëpp taxawee tiit ka leen di rambu mooy man sayiduna muhammad man la yàlla di njëkk ràmmuloo moo tax ku ko yaakaarul rek dóor nga sa loxo ci ëkk cheikh alhaaji malik teel a joxe boppam wa shafiahu fiina fi liqaa'i wa kulluna siwa alhibbi mawsuufun bi ru'bin wa rahbati ne yow sayyiduna muhammad wa shafi'hu fiina bu ëllëg yowmal qiyam yàlla na nga ñu ramlu kañ la fi liqaa'i wa kulluna bis ba ñuy dajeeg yàlla nga xam ne wa kulluna mawsuufun bi roxbin wa rahbati ku ci ne ci ñun rek doo ànd sa sago ëllëg ñu ne Cheikh Alhaaji Malick wali yu yeeg aqtaab yeeg abdaal yeeg mu ne yooy ñoo ñëpp ñu màgg lañ waaye ambiya yi nga xam ne ñoo gën a foor kudul ñoom la wax ne bu ëllëgé duñu ànd ak seen sago moo mo moo dane bi aadama idrisin wa huudin wa yunusin wa nuuxin wa luutin summa hawil li xullati kada zakariyaun shuaybun wa salih taqina rad ad daarayni min kulli wahlati wa min ali al-mustafa jam'u shamlina bihi kasu al lmuhibati nga gis sayyid al alxaaj ma radiyallahu anhu ni mu rimé yonenti tambalé ko ca adama ñom ñep buñu taxawé ci kanamu yàlla subhanahu wa taala ku ci nekk am na loo defoon ci àdduna loo xam ne mooy des sa xel ba tax doo ànd ak sa sago waaye booba nag yàlla mi ngi bëgg a feeñal martabay sayiduna muhammad moo tax nag buñ gaayee départ dem ca aadama mu ne du man ñu départ dem ca ibrahima mu ne mënuma ko ñu départ dem ca isa mu ne mënuma ko ñu départ dem ca moussa kazalika yaquba kazalika yunus ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bu gaay yi départ ñëw ci yow ne la pour nga ràmm ñu mu ne leen dédet gaay yi xam ne nag tabaarakallahu kenn fi des benn sang muy sayiduna muhammad ñu dem moom moo leen di ràmm nag moo ñuy génn ca ca ca tàngooru jotaay boobu moo tax wa ana awalu shaafi awalu shaafiin wa awalu mushafain yowma alqiyamati wala faxra yonent yàlla muhammad ne bu ëllëgee man maay njëkk a yëngal buntu aljana Mustafa bu duggul aljana aljana xaraam na ci ñëpp yonti yàlla muhammad bu duggul aljana aljana xaram na ci ku mu mënti doon moo tax mu ne bu ëllëgee may njëkk a ubbi bunt aljana dugg nag waaye nag aljana nag nit ku ñuul mooy njëkk a dugg aljana yëguloo nit ku ñuul mooy njëkk a dugg aljana gis nga yàlla foofu lam fa feeñal ngir ñu ñuul ñëpp gëm seen bopp ngir ñu ñuul ñëpp fonk seen bopp ngir ñu ñuul ñep xamne yàlla subhanahu wa taala daf leena teral daf leena bëgg ndax bokku na ci Bilal ibn Rabah ni ko yonent bi téralé won nga xamne ne Bilal dane ko bu ëllëgé dal bëgguma luddul la ngay war pour duggu aljana man may jàpp ci ngalab ga di la ko wommatal ba nga dugg lool rek la bëgg yàlla subhanahu wa taala nangul ko ko moo bu ëllëgé Bilal moy njëkk dugg ndax yow mi ànd ak sa safoor di dugg sa kër bu oto bi duggee safoor bi mooy njëkk a dugg yow mi nekk ci ginnaaw nga doog a dugg moo tax Bilal mooy wommatal sayiduna Muhammad la mu narawal ba mu dugg biir aljana kon kii njëkk a dugg aljana mooy nit ku ñuul moo tax yonti yàlla Muhammad ne bu ëllëgee maay njëkk a yëngal buntu àdduna buntu buntu aljana dugg fa tabaarakallah waaye lam ko tëjee nag mooy wa ana akramul awwalina wal axirin mboolem lu yàlla mës a bind avant maa ñëw ci àdduna ma la gën bi ma ñëwee ci àdduna ba keroog jant bi di fay mboolem li yàlla di bindati moo xam fekk na ma fi moo xam fekk ma fi man yonti yàlla muhammad maa la gën a tedd ci yàlla nga gis kon yonti yàlla muhammad li mu jiital mooy xabibullahi nakate kon xabib moo gën a foor xalil xabib moo gën a foor kalim xabib moo gën a gën a foor ruuxullahi garat yi gaay am yépp garatu Habiba ko gëna for musa Moussa ne yàlla Moussa ne yàlla ma ngi lay laaj lan moy différence digënté Habib ak Kalim comme mom mom garatu Kalim mom Moussa yont yàlla Muhammad mom garatu Habib lan moy farq bi bi maana lan mo len tekkale ñom ñaar yàlla ne ko dina la ko wax ci ñetti anam bu ñëk bi moo di ne alkalimu garaat la boo xam ne ki ko am chaque jour day liggéey di xool li neex boroomam mi koy mu koy def liy kontaan loo yàlla ci la Moussa di xëy ci la Moussa di gont sañul def leneen lu dut lu neex yàlla moom moo yore garaatu alkalim bokkut al bokkut ak Habib nag Habib mooy ki nga xam ne chaque jour boroomam day xool li ko neex mu koy defal Moussa chaque jour day xëy di def li neex yàlla yont yàlla muhammad nak chaque jour yàlla day xol liko neex mu koy defal lolay différence habib ak kalim benen bi ci dess ban la muneko habib moy ki nga kalim moy ki nga xamne bi mu bëggee wax ak boromam yàlla daf ko yebal ci montagne bu ñuy wax tuuru sina mu dem ba ca montagne ba taxaw wax ak boromam ak la ca xew lépp bokut ak habib nak nga xamne moy garat bi yonti yàlla Muhammad amé nga xamne biko yàlla soxla da ko dafa yebal ndaw mu fekk ko ci bir kërëm ci bir négam ci kaw lala mu sango mbàjjam mu woko yóbbu ko ci place bo xamne kenn musufa egg ta ba àdduna di tukkeeti kenn dootu fa egg bi bu safa yàlla subhanahu wa taala bim ko bëggee rañan ca subhanallazi asra bi abdihi laylan ilal masjidil haram mais bi abdi yi nag na ci ñëpp bàyyi xel garaat yi yonent bi am yëpp taxul mu doon yàlla nag sayidna muhammad li muy foor foor foor li muy màgg màgg taxul nag mu doon yàlla moo tax subhaanallazi asra bi abdihi la yàlla wax yonent bi daan wax ne li ma yàlla woowee lépp baatu abdu boobu moo ma ci gën a neex mooy nekk jaam lim lay jàngal mooy nit leneen loo doon lu dul jaamu yàlla rek yàq nga ko tabarakallahu moo tax ah dañuy tegandi foofu sunu baaraam rek incha allahu taala bu ko defee ñëpp wettali koo ko fi mu toll nii jamono loolu la laaj kenn ku ci nekk rek nga toog fa nga nekk tabaarakallahu ñu ànd di la gunge ci sayiduna muhammad di la bégal ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ñaan yàlla rek yàlla subhaanahu wa taala jëleel ñu fi feebar bi ba ñun ñëpp ñu delluwaat suñu ay activité ñëpp ci war a jàpp nag ku ci nekk rek fa nga nekk rek jàppal ne mbir mi am nga ci am nga ci tabaarakallahu wàllu woo war a bay dañ la wax ne toogal toogal leneen lu ñu la dénk rek tabaarakallahu def ko ngir jàmm ji bu ñëwee ñun ñëpp ñu bokk ko kon ba subaak jàmm ci waxtu wi ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh